برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان مجلس إفحام المنكر الجاني بما مودو بن نسخة بايكم عمون نكتو مثل من سن يحيى لي رحمه الله موقف جليون xam naa ne ku dem ci téere bi fekk ko ci mbind mu rafet la mbind mu rafet la mu ne wasifa benn yoon la ca faas te benn yoon la ci tarixa bi wasi moom wasifa bii muy def moom ci suba ba nekkee ca uh, jagsaaw buñ julliwaan fajar feeg bi ñuy lalee jàng ndongo yi élèves yi étudiants yi coow lu amul njëriñ daf fi daan am mu faf tënk leen ci wasifa ndax am na njëriñ te dana tax duñ fi soow coow lu amul njëriñ moom laa waxoon atam ca centenaire u gàmmu Tiwaawan ba ma présider benn jotaay ma ne daal foog ngeen may ma ma def benn témoignage ñi ngi wax ci ulamaaw yu bari yuñ gisul dégguñ leen war nañu mun wax suñu ilmaaw suñu ulamaaw réew ma ne maa Maodo ci ñi gën a honnête intellectuellement ci sëriñ si ma gëstu seen mbir ci la bokk ma ne te am naa ci ñetti misaal benn bi mooy bu defee dara dafa wax lu tax mu def ko su bindee bu bàyyee dara dafa wax li tax defu ko ma benn ba nee na wasifa suba lii moo taxoon mu def nee na pepp yi ñu wax ci sunna ne ci la ñuy génne asaka ñaar fukki xeet yi gerte bokk ci moom xam na ixtiyaat moo tax mu di ko génneel prudence prudence bind na fa sax wasu ixtiyaatin fi umuri diini man farra min shakkin ila yaqini nee na julli sunna julli ci yontel Muhammad mooy bu kabaree jàpp loxo càmmoñam ak loxo eh, ndoxo ndeyjoor càmmoñam jàppe ko loxo ndeyjooram ci julli muy xabdu mooy sunna defu ko de mais li ko tax a du ñàkk wér réew mee koo xamul moo ko bind mi ngi ci mi ngi ci euh, euh, mi ngi ci kifayatu raaxibin mu ne te ulamaa yi ne nañ bàyyi benn sunna ngeen ñoŋeel sa der dara nekku ca man ma firee ko ngir bañ perturbation ci jotaay booba ma wax ko ngir yàlla may leen tey àddina dafa du tànk tey képp ku yaakaarul lu mooy Maodo mu doy lu sëkk suñ la gisoon ngay xabdu moyoon di gëlëm ndax dafa ne xamuñ ko te léegi xam nañ ko te usul dafa barhaamu baaun waraaun alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan